Touba ca kanam wajalilaahi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri manabaat Touba ca kanam wajalilaahi maskani Touba mi bi nga xam ne moom lañ jiital ci kanam muy Serigne Habibou Mbacké Fadel mi nga xam ne moo nekk ci bopp Touba ca kanam waaye di nuyu sëriñ abibu sëriñ abdul ahad moom sëriñ abibu ni nga xam ne moo topp ci moom ak mbooleem suyuux yi nga xam ne ñoo teew fii ñëpp bàyyiwuñu kenn ñépp sëriñ Gueye lim na leen waaye di beral nuyoo sëriñ abo bu mi nga xam ne moo fi teewal soxna Bali ko ak mboolem délégation bi mu àndal bépp waaye di nuyu soxna maam Issa Mbàkke mi nga xam ne moom it kenn ku ne xam na ko ci liggéeyam ñu gën koo xam ci maam Issa Ahlu Café waaye di nuyu mbooleem képp koo xam ne yaa ngi ci diaspora bi rawatina nag soxna si nga xam ne moo am initiative taxaw lii taxawal lii muy soxna Issa euh, Mag Njaay Amin Njaay di nuyu mbooleem képp koo xam ne rek teew nga ci saal bi wala nga bëggoon fee teew ca teewoo fi sunu kàddu nag ñu yëkkati ko yi turu commune bu tuuba bi nga xam ne Abdoul Ahad Ka moo ko jiitee di maire ba ma topp ci moom di adjoint jiite it commission bi ñuy wax communication ci wàllu mairie bi di am mbégte lool nag ci jataay bii ñu teew fii ci Paris ngir dafa am lu muy wane ak lu muy jëmmal loola mooy lan diggante tuuba ca kanam ak commune tuuba ndax dañuy ñaari banqaas yoo xam ne day banqaas yuy liggéeyal sëriñ Touba ndax tuubaa ca kanam ak mairie bu Touba muy commune Touba dañuy ñaari mbir yoo xam ne nii duñu ñaar duñu ñett benn lañ ndax tuubaa ca kanam mënul dem bàyyi gannaaw commune Touba commune Touba itam jamono ji mënta dem bàyyi gannaaw tuubaa ca kanam kon su fekkee ne dañoo am bis bu toll nii ñu ne dañ koy amal fii ci Paris ngir lan gën a taxawaat lancé waat Touba ca kanam taxawaayam fii ci Europe rawatina ci Paris ñu invité commune Touba ne ko ñëwal teewe si jataay boobu mu ànd ak délégation bi jóge tuubaa ñëw su ñëwee ñu jox ñu kàddu ñu war a yëkkati war nañu leeral ndax baraana coow yu jóg ak yu nit ñi di dégg ci diggante commune Touba ak Touba ca kanam ca dara amu ci ñaar ñu ànd bëgg a liggéeyal Serigne Touba rekk lañ mais doxin yi moo wuute doxin yi nan la wuutee Touba ca kanam da di daayira daayira boo xam ne nii ay mbokki taalibe ñoo fa ànd di yëkkat seen alal di ca def commune di administration boo xam ne dafay dox ci ay chart ak i surut yoo xam ne état moo ko tëral mu mel ne commune bu jógee yoonu boppam mënu ca aw dafa tënku ci administration tënku ci loo xam ne nii buy jóg mbiram dafay tege ci yoon am fu mu war a tege commune lépp lu mu dajale dajale ci xaalis denc ko ci poosam daf koy dajale waaye trésor public la jëmaat boo laajee dara ca sareet ya wala ca bitig ya wala dara dencoo ca sa gafaka da nga koy yëtaat état mu denc la ko amoo droit denc ko da koy jël yóbbu ko commune yóbbu ko ca trésor public trésor public moo koy garde bis boo jógee ni dama caa bëgg a def dara doo dem rek ne bind ne damay defar lii déedéet dafa am doxalin wu muy awee yaa ko fa joxe woon dénkaane ko fa waaye dafa am procédure bu muy jaar procédure ba mooy lan da ngay bu fekkee ne da ngaa bëgg tabax dara da ngay lancer appel d'offre ñu ñëw soumissionné ca jënd seet ca ñu xool kay moyen dix ans ñu ne ko yow yaa koy jël kooko bu ñu ko joxee mu départ liggéey ba ñu jël avance de démarrage jox ko mu commencé ak moom di ànd lu mu am état jox ko commune bu ko defee trésor di ko jox kon loolu mooy wuutee yi wi nga xam ne wuute na ko Touba ci kanam Touba ci kanam nag dafay am alalam laaj ko ci taalibe yi dencal ko boppam xool la nga xam ne war na ko caa def ci lu urgent mu daal di koy génnee daal di ko cay dugal daal di ko cay def kenn du ko laaj fu mu koy def xam ña koy laaj ku fay def xanaa ñi nga xam ne ñoo bokk ci Touba ca kanam kese kon mooy ñaari doxal yi ñi nga xam ne moo leen wutale waaye teewul nag Touba moom c'est spécial moo tax ñu lënkaloo ñoom ñaar ngir jàppalante liggéeyal Touba loolu nag commune bi war ci kontaan lool ci it def cee kontaan ndax baraana lu commune bi mënutoon tey ñépp waroon ko mu waroon koo def mais man-manam mënu àggu ca woon waaye Touba ca kanam jàppale na ko ca ba taxaw ca def ca defin woo xam ne nii kenn ku nekk da xam ne lii mënutoon a ñàkk ci dëkk bi ndax bu dee ci wàllu sante kenn ku nekk xam ne ne commune ci sante domaine la boo xam ne état day jël nangam jox la nga yëkkati sa commune nangam dolli ca mu ne la def jaaral ci médecin district bi nga xam ne moo fi nekk mu wax la gox sàngam la bëgg ñu def ko fa ñu def ko fa ñu koy surveiller di ko xool Touba ca kanam jóg bi ñu xamee ne Touba yelloo na fajukaay kenn ku ne xam ne lu fa manqué la ndax dëkk boo xam ne ñu ngi wax 2 millions d'habitants la ñu ne ñaari benn hôpital de niveau trois la am benn hôpital de niveau 1 yi ci des ay centre de santé yi ci ay dispensaire commune bi góor góorgóorlu ba tabax ci loola ñaar fukk Touba ca kanam ñëw xool ne commune baa ngi góor góorgóorlu waaye lii doyut Touba mu daal di jóg ne naa dugg ci santé bi jàppale ci commune bi jàppale ci waa dëkk bi daal di tabax ay poste de santé ba inauguré leen bay tabaxaat yeneen ba yooyu war a pare mu war leen inauguré nga xam ne lu war a mat juróom benn xaw ma juróom nang Touba ca kanam def na ko ngir jàppale ko Touba jàppale ko it mën naa ne commune Touba kon ci wàllu santé muy loo xam ne bëggoon nañu ko ndax ñun li ñu am droit mooy at mu ne suñu wootee commune wootee budget bi ne budget bi war nañ ci tabax ren benn poste de santé muy loo xam ne nii ay critères lay tege yu wér ñu doog koo def Touba ca kanam ñëw xool ne gox bii kat laaj na ko commune bi ak seegu fi naa ko jiitu foofu def ko fa muy ay gox yoo xam ne laajoon nañ ko benn ma jox ci exemple fu mel ne Boberel ñaari at yi yëpp dafa bokk ci initiative Touba euh, commune mu war faa tabax centre de santé waaye bi tubaa ca kanam xamee ne ñii lu urgent la ci lu ñu soxla la ña nga fay tabax benn ba yaakaar naa ne léegi ñu war ko inaugurer kon loolu ak cant la goo xam ne Touba ci kanam commune Touba mi ngi koy sant bu ñëwee ci wàllu électricité boo gisee tey jii tey internet beeg rajo sociaux yëpp ku taal gis ni Touba leere xam ne commune bi doon na ci jéem waaye mënta leeral lépp mënta def lépp Touba ca kanam ñëw jàpp ne kat gis na ne Touba am na fu manqué ca leeraay mu daal taxoon ci loolu ngir fas yéene ko leeral dem jënd ay làmp andi ko yët ko mun Cheikh Mountakha Cheikh Mountakha waxaat sëriñ bi Habib ak sëñ ab Lahad mi dem leen ca commune ba kon li may wax ne sëriñ Touba moom dafa xam lépp mu yëlbat ko dellu leen ci commune bu ngeen waxtaan ñu laaj fa lañ ko war a def bi ñu ñëwee nu toog toog waxtaan àndandoo ba mu gëm ñu xam ne fii lañ ko war a def ñu dugg biir dëkk bi di ko def ba dëkk ba fa lay alhamdu ma nga mel noo xam ne ni leer nañ te loolu Touba ci kanam mi ngi ko def jàppalee ko commune kon Touba ci kanam ñi ngi koy sant di ko gërëm ci wàllu muy wàllu l'éclairage public bi nga xam ne kenn nag xam ne ci ba fii may wax yow ña nga ca ca kon loolu commune Touba mi ngi leen ci sant di leen ci gërëm bu baax a baax soo demee ci wàllu ndox kenn ku nekk xam ne ne heure bu ñu wootee budget bi danañ ne nangami kilomètre danañ ko def ci biir dëkk bi ñangami kilomètre yooyu ni ma ko waxee dana yeex léeg-léeg année bi dana dem bay bëgg a jeex sax du mën a àgg procédure yi muy jaar ñu marché dana jël presque trois mois mu door a commencé war a mën a liggéey Touba ci kanam ñëw xool ne lii yeex na ca war naa mën a jàppale Touba mu daal ne dan ndox ma moom itam dugal ci nangami kilomètre jàppale waat ko commune Touba jàppale ko waat Touba kon relation la ak taxawaay ak jàppale boo xam ne bu mat sëkk la boo demee ci lépp loo xam ne nii rek commune bi soxla na ko muy ci wàllu mbalit boo gisee Touba ca kanam ñaata oto la ñu jënd lu mat nangami oto andi ko ba ñu ko andee tamit dañoo ñëw jàpp ko woo mairie bi mu ñëw mu toog mu ne ko lii noo ko jënd ci oto danoo bëgg a seetal dëkk bi ñi ngi lay laaj lan nga ci taxawee bis boobee Touba ca kanam bi mu waxee ba pare commune Touba dañu ko jël naa ko may fay safoor yi maay fay ñi ci liggéey maay joxe gaasuwaal yéen tànn leen ñi koy superviser ñu ànd liggéey Touba. kon loole mooy wane ne ñaar ñi jaxasoo nañ lëkkaloo nañ ca benn lañ liggéeyal Serigne Touba rek lañ bëgg a def loolu nag li tax ma gën koo leeral nii mooy rumeur yi dafa bëri nit ñi di wax que Touba ca kanam ak meeri Touba dañoo mel nii dañoo bëgg a liggéey ñu bëgg leen a gàllankoor waaye loolu dara amu ci ndax nit ki jóg ngir ñëw jàppale la ci ngeen bokk lëkk bi ca bokk lépp. kooku kat danga koy tàllali loxo ñaanal ko ngir ne ko kaay jàppale ma ndax ki man li nga ki nga li nga mënut kooku kat li may mën a def mooy tàllal ko loxo ne ko kaay jàppale ma ca Touba ci kanam nii nga xam ne nii la taxawee taxawee ko ci gannaaw mairie bi loolu lu rafet la lu mairie bi rafetlu la lu waa dëkk ba rafetlu la kon nag muy loo xam ne lu am solo la loo xam ne bëggoon nañ koo leeral bu baax a baax ba ñëpp xam ko kon ñu ngi gërëm ñëpp nag di sant ñëpp nag di lancé waat appel d'offre ah, euh, lancé waat appel ci waa Touba ci kanam ak képp koo xam ne yaa ngi dégg Touba ci kanam ngir nga taxaw ci jënd ci carte liggéey ci ndax man ngi koy wax léegi rek bi sëñ Ablaye taxawee fii ne damaa soxla nangam baraana kenn ku ne ku yëkkati ñii 20 euros ñii cinquante euros ñii 100 euros waaye tey ñooñee ñu ci bëri tey boo demee amuñu carte Touba ci kanam ca loolee 100 euros yeeg 50 euros yi moo ëpp 1000 francs 1000 francs la nag ak 20 euros at at yëpp 20 kon ñun ñëpp nañ ci jàpp ni ci waa Touba jàppe waaye neen jàppe ci waa France itam na ngeen ci jàpp ndax kat lu am solo la te mbir la moo xam ne nag ni ma koy waxee bër bërigo la bu ñu teg ci kaw mbartal ku jëñax mu dem ku jëñaxul mu dem Touba ca kanam ca kanam rek kon nag sëñ Touba ko wote woon am na ko wax léegi ne sëñ Fallou sëñ euh, Mouhamadou Lamine Bara dafa waxoon ne Touba na mel ne Makka ak Madina waaye nii mu aw de ku jàppale Touba ca kanam loolee sëñ Moussa euh, Mouhamadou Lamine waxoon dana am Touba dana mel ni Makka ak Madina kon nag maa ngi lancé appel di jox ti li nuyoo monsieur le maire Abdou Lahad Ka mi nga xam ne tey moom la ñu invité woon fii te kenn ku ne xam ne ne jeudi bii di ñëw dañu war a wote budget Touba te moom mu xam ne loolu bu ko dee wote duñ ca du ca mën a ñëw loolu moo waral mu dakk ndaw dagal ko paasam jox ko léppam ne ko demal teew ca liggéey ba ba ñëpp xam ne Touba ca kanam ak commune Touba benn lañ ñaari ndaw lañ yoo xam ne dañoo fas yéene taxaw liggéeyal Serigne Touba kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp dellu nag di ñaaxaat ñi nga xam ne ñoo ne ci kanam ñu gën a jàpp ci liggéey bi gën a jàppale waa Touba ci kanam ba Touba ci kanam li mu am yéene bëgg koo liggéeyal Serigne Touba mu mën koo liggéey wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ji Njaay wax ji rafet na lool am na solo it. Touba ca kanam. misrasmiha bi jaayi xayri man abaat Touba ca kanam wajalilaayi maskani Touba abaat misrasmiha bi jaayi xayri man abaat